ji naan dañuy opposé ñenn si ñuy naan dañuy opposé jamono ji boo liiree bataaxal. Mhm. la ñuy souvent da ngay gis am na ay mots yoo xam ne pour man. parfois y a des de trop. waaw c' est des mots mhm. parce que communication dafa am sens. yow da foog ni tu es de faire mal alors yow tu es en train de de politiquement. tout à fait parce que sénégalais yi ñu si bari dañuy dem ba xeeb la parce que dañu naan kii. saay bu bindee wax ju ñaaw yu mu si boole kii de jarul nga koy jiital parce que ku ko jiital mu faqatal la donc il faut quand même que gars yi di bàyyi xel loolu yëpp ba pare di xam ne communication. bu mu si ti doon dafa am contexte ak situation boo xam ne war nga mesurer le contenu et le contenant pour que véritablement mu am effet mais bu fekkee ne nag maa tey laay def damay gërë gërëlu damay wane ne man gërë la te yow dametu lacrymogène mosoo ko nokki defe naa ni euh, ay la yowoon il faut quand même que ñu xam li moo di lan moo raison garder. d'accord alors am na am na solo alors euh, ñu ñu wax ci benn euh, sujet boo xam ne def na l'actualité sénégalaise depuis une semaine pratiquement muy lu jëm ci port du voile ci suñu école. Hmm. le premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko dafa am àndoon ak président ñu dem ci concours général fi ñi hmm. ndokkalee ñi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku ci at bi bi ñu ci jógee mu doon dajeeg lauréat yooyu di waxtaan ak ñoom am ay questions ñu ko doon posé am ci soxna su ko laaj ci lu jëm ci port du voile école yeeg yéen yi ñu gis ñu koy aaye mu joxe ci position mu ne dootuñu ko nangu fii ci Sénégal cette question yow ndax am nga ci compréhension d'abord bi ci ñenn ñi am ñii ne c'est une question de règlement intérieur comme le ministre de l'éducation nationale ca geneen wàllu ga am ñu ko jàppee une question religieuse ba mu jur euh, ramification xam ne moo ci commencé am xëy na ñu ñu ñëw ci kanam. waaw xam nga question la boo xam ne souvent dañu naan dafa sensible non non c'est même pas une question sensible question la boo xam ne dañ ko war a dañu war a installer le débat mais avec lucidité dañu war a instaurer le débat mais avec responsabilité. d'accord dama ne euh, dëgg dëgg dëgg dëgg sëñ Babacar. Mhm. gis nga voile dafa am aspect boo xam ne dafa diine moo ko moom am aspect boo xam ne c'est culturel tey boo demee dans les pays de l'Est Russie Pologne Ukraine Bulgarie seen jigéen yi daanaka gis nga leen ni ñuy ni daanaka dafa mel ni dañuy musoo dañuy dañuy def voile mhm. c'est culturel boo demee tey Égypte du pays islamique tout à hmm? mais am na partie boo xam ne wàllu chrétien la mooy copte yi mhm. ñoom seen wàllu bopp copte lañu ay ay chrétien lañu Égypte lañu dëkk égyptien lañu te pourtant dañuy def li nga xam moo di moo di voile te pourtant noonu nga ne ne ah du ñu ay jullit wax ñuy def voile boo demee fii nga xam ne mooy la communauté libano-syrienne bi nekk fii Sénégal ak ñi ay jullit lañu ñeneen ñeneen ñi ay ay chrétien lañu mais ba si chrétien yi am ñoo xam ne dañuy voilé donc dafa am dafa am dimension religieuse am dimension culturelle te ñun ay la yoon euh, Sénégal dama ne ñun dañoo war a dépasser le débat sur voile. xale bu ndaw bu voilé dem école boo xam ne nañu école catholique la ñu ko fay andil ay problème parce que dañoo bokk lépp xam nga ñu bokk lépp. si mhm. wàllu taarix ñu bokk lépp si wàllu euh, li nga xam ne mooy dundin en communauté ñi bokk lépp si li nga xam ne mooy dañoo déggoo. par rapport à notre commune volonté de vivre ensemble la perception elle doit être différente de la perception bi France am jamono ji au débat autour du débat bi soxal li nga xam moo di wàllu l'islam te am nga France dañoo tardé culturellement et religieusement. ba tax na ah. ñoom ay ay waxtaanu ay jël ay jàll jàllaaba la ñuy waxtaanee ndax dañ koy sol wala duñ ko sol. Mhm. ay waxtaanu chemise alaaji est-ce que dañ koy sol wala duñ ko sol mais costume eh, du du du na bi un habillement universel. mais dem nañu ba partagé ko. c'est culturel encore une fois tey su ma doon solu comme comme laayuta laayu nekk Iran est-ce dañ may xoolee bëtu kii nii saay euh, terroriste la. est-ce que tey su ma doon solo comme comme comme comme taliban yi nañuy solo est-ce que dañ may xoolee benn benn bët alors alors que c'est culturel parce que pakistanais bi noonu euh, afghan bi noonu lay solo boo demee tey Inde am na benn ñuy solo méngoo nañu sax ak ñi nga xam ne ñoo di afghan yi mais c'est culturel donc man Ousmane Sonko li mu wax dama jàpp ne labbe bi dafa dafa teel a tontu te tontu bi mu tontu dafa dugg ci ay détails yoo xam ne jaru ko woon. te encore que ñun dañuy faral di naan non non bi il faut ñu xool mesurer waaw sëriñ bi dafa wax ñu ne sëriñ bi li mu wax ëpp na ñëpp dal si li mu wax. Mhm. imaam bi ñu ne oh imaam bi li mu wax ëpp na mais ñëpp wax ci imaam bi waaye léegi lu tax keneen bu waxee ñu ne ñun duñ duñ si wax labbe bi c'est la au même titre. Mhm. imaam bi ni muy waxee Jean ak ak Ablaye toog di si wax. Mhm. Ah? Euh, euh, sëriñ bi. moo sant moo xam moo bàyyeekoo Touba la moo xam Tiwaawan la moo xam feneen des kenn si ñoom wax ñu am ni ñu ko interprété ñëpp a àddu si waaye léegi ñu ne léegi keneen nag dafa bokk beneen kër bu waxee duñ si àddu déedéet dañu siy àddu parce que tamit boo xasee ba wax moom moomatoo sa wax. tout à ña koy dégg ko wax man tey sama wax ji may wax ni moomatoo ku ko dégg am na nu mu koy interprété. Hmm. soit négativement soit positivement. donc je dis encore fois lu ñu liggéey ñun fii booy xool taarixu Sénégal. taarixu Sénégal. Mhm. c'est le plan véritablement de l'approche traditionnelle ñaar ñu ko liggéey ëpp si lu ñu si liggéey kenn ki labbe la mooy labbe Boala keneen ki jullit la traditionnaliste la muy Yoro Buli Diaw ñoom ñoo gën a liggéey si li nga xam ne mooy approche bi nga xam ne moom la ñu am donc ñun euh, nga xëy ñu ne la dàq nañu ab élève parce que règlement intérieur bi moo ko moo ko interdit gis nga ñëpp bu ñu respecté l'article premier de la constitution du Sénégal. Mhm. coow dootul amati ci interprétation yi nga xam ne moo ci am. il faut quand même que ñu xam ne ñun dañoo am ay limites yoo xam ne waruñu ko dépasser limites yooyu nag li ko encadré mooy tey boo demee Joal cimetière mixte moo fa am catholique ak musulman. boo demee Ziguinchor cimetière mixte catholique ak musulman am na ay familles yoo xam ne tey jii si suñu mbokk séeréer suñu mbokk joolaay et consort mhm. c' est des familles mixtes ñii chrétiennes lañu ñii musulman lañu donc encore une fois ñoo mën a yegg si foofu gis nga li fi nekkoon après les indépendances avant les indépendances après les indépendances mhm. si école yooyee ay nasaraan lañu ay nasaraan lañu donc ñoom tëgg nañu loo xam ne xëy na dañu doon bloqué leen yi waaye nag ñooñu ndaxam nekkatuñu fi depuis autant de décennies ñun war nañu mën a tëggaat beneen gis-gis beneen doxalin ça n'a rien à voir ak ñi naan mos ngeen gis école franco arabe boo xam ne dañ fa accepté euh, kii beneen wàllu diine mais c'est différent école franco arabe ban la parce que école franco arabe bi. ay la yoon keneen ko bokkul ci diine bi sax du fa sawar andi doomam yoo xam nga dafa andi dafa sabar andi doomam. alors que yow mii da ngay am sa doom nga dugal ko beneen école boo xam ne dañu naan école wàllu diine ba leen ça ne te dérange pas. ça ne te dérange pas donc niveau bi foofu la bu ñu demee nag ba dugg si école boo xam ne l' approche est théologique théologique laa wax si wàllu diine si wàllu diine jullit tuddal Fatou Bintou Rasoul Maxu Mandela doo muurul doo fa dugg. danga mu baax est-ce que. si si tout à fait. boo muurul doo fa dugg même boo loo doon doomu jullit akam lay jigéen boo fa boo buggee jàngee foofu boo muurul doo fa dugg am na école yeneen yoo xam ne c'est des écoles théologiques catholiques man Abdoulaye du mu fa dugg mënuma fa dugg. parce que pour nga dugg fa dafa am melokaan booy mel si wàllu diine euh, catholique boobee. dafa am mandarga yoo xam ne war nga ko remplir parce que lañ fay jàngal théologie la si wàllu si wàllu diine boobu doo fa dugg. contrairement à ces écoles xam ne service public li ñuy def ñëpp ci war a am accès. voilà il faut approche bi nag ñu gisee ko noonu gis nga bu ñu tënkoon nii rek gis nga tey nii. la mhm. la waajooju wax Cheikh Ma Diagne mooy keneen lu mu wax mooy dëgg tey nga am xale bu ndaw bu voilé di jàng si gënut nga am xale goo xam ne yaram yëpp ay tatouage la. am xale gu ndaw gi jàng si gënul nga gis xale bu ndaw goo xam ne fépp ay piercing la nga am xale bu ndaw buy voilé wu gënut xale goo xam ne ay ay robb yu gàtt ak ay short yu gàtt lay sol wala yaram yëpp na fàng gënut il faut quand même que ñu xaw a dal xam ne ñoo bokk lépp dañu war a waxtaanee loole léegi nag lan moo si doy waar xam nga lan moo si doy waar question d'intérêt national yoo xam ne dañ ko war a waxtaanee pour juboo juboo ci kàddu parce que ñoo bokk lépp ñu nag diine geek ñoo bokk lépp mais da ngay gis ay politiciens ay politiciens yoo xam ne ils sont en perte de repère ay politiciens yoo xam ne ñetti nit amuñu ko. voilà malheureusement parce que fa la bëggoon ñëw. voilà say jëmën wax yaa ngi koy wax. d' accord ci ñu naan c' est un sujet sensible. Mhm. on doit poser débat mais ànd ci ak lucidité bañ ci xool des intérêts mhm. culturels mhm. wala politiser le sujet. lucidité boobu. est ce que mu ngi ciy am. dëgg dëgg non bi xam nga ku ko ku ko bëggul am rek moo koy am. keneen nag day demee ak xët-xët si wàllu diine day dem xët-xët si wàllu diine. parce que responsabilité may na ma bi may si ma jàngatee bindum abbé bi. am na loo xam ne su ma neexoon xët-xëtu diine moom ma si jugal am na parti boo xam ne dama naan kii nii suñu wàllu diine la la laal mais responsabilité may na moo du ma toog fii di ko di si dugg parce que dafay ni da ngay andiwaat beneen li ma ëpp solo rek moo di njuumte am na pour donc rectifier mettiwul lépp si waxtaan la il faut continuer le dialogue léegi nag politicien bi nga xam ne moom dafa contre nguur gii wala dafa contre nguur tout court wala dafa contre surtout kii nga xam ne moo àddu wax muy di premier ministre Ousmane Sonko mais politicien boobu moom yoonam nekku si moom nu mu gën a enflammé affaire bi ni muy gën di jaxasee lay wut parce que politicien la boo xam ne dafa bëgg profiter situation pour wàññi gën di fexe kee ñu naan dooleem wàññeeku na si perception nit yi par rapport à la perception populaire alors que keneen ki mu ngi fexe moom nu muy créer les pour que ce débat là soit posé et de manière donc politicien boobu xam nga ab yoo xam nga yoo. Mhm. yoo yi nga xam ñooy biwu guddi di di di di màtt ni di seet mu koy joxee te paludisme. Mhm. ces la là sont des anophèles politiques da ngaa war a yor sa bomb yoo toog ma yor sama bomb euh, euh, euh, kii xaw ma beneen bi yaa ngi dégg. Mhm. fu ñu leen gis daal di leen arrosé. Ah parce que en réalité que ce débat en réalité c'est des dangers dans ce sens. en réalité c'est des c'est des c'est des c'est des microbes ambulants parce que ñoom lu leen soxla du en réalité poser le débat pour véritablement créer les conditions d'une conciliation ñu déggoo ñu waxtaan ñu juboo ci woo ci kàddu googee xam nga loolu si intéressé dividende politique naka laa si amee dividende politique ñoom loo leen si intéressé waaye du leen moo leen si intéressé donc je pense que ñooñu euh, il faut quand même que sénégalais wu ràññee leen xàmmee leen wasaare leen feeñal leen parce que en comme euh, si mun doon nga naan ah, occasion présenté wu na bàyyi ma jël position waaye nag position bi may jël damay jël position farak ñee pour tirer sur kii afin que sawaay doolem xëy na wàññeeku man sama doole xaw a yokku wala boog ma am sympathie si si si sénégalais bi may dégg et cetera wala ma am sympathie si communauté bi nga xam ne jàpp nañu ne dañ ko xaw dañ ko tooñ donc je pense que il faut éviter cela et malheureusement nous nous nous l'avons au Sénégal et c'est fort dommage. d'accord alors même su fekkee Abdoulaye Mbow ci ni nga ko wax ci biir kàddu jàpp nga ne abbé bi dafa teel a tontu mais est-ce que amul ñoo xam ne tamit dañoo ñëw ci peut-être erreur ñu gën a xamb ci taal bi. parce que boo déglu Ousmane mmh. Sonko man j'avais pas j'ai j'ai du mal un peu à comprendre.